lii c'est une chose boo xam ne bii père de famille bu nekk war na ko ñaan yàlla quoi donc say doom ngeen toog ñu waxtaan ay affaire doomu baay yooyu ça n'existe mooy vous avez le même sang nekk ndox benn ko foo diree ba pare di gisonte quoi waaw à part ça comme lu mel ni ay problème yaay kooku ñoom seen affaire la mais yéen je veux que vous nekk ndox benn wax na ma nouvelle boo xamante ni je pense que ñu ñaan ñëpp dinañ ciy réjouir. loolu war na neex de xanaa. est-ce que yëgoon nga ne ay bay daw bay na day toog ba ay deux heures deux heures et demie du matin nga di ko woo di wax ak moom te mu yor jabar xam nga ne loolu rafetul. dëgg la nag ça se comprend jigéenu wérul li nga am ay caprice mën nga toog ba heure boobu sa xel nekk ci dara mais nag dangay sóoraal ne ki nga ko digaaleel dafa am jabar te lii dañ koy nëpp nëppal. parce que mi ngi fréquenté benn xare bu jigéen boo xamante ni waaw mën naa ne kooku mën na ko mën na ko yàqal si lu bari xam naa famem xam naa sa famille. jëkkër ba tax na kii muy frekante ba ëmbal ko dama ko xam bu baax.